Euh, tey dañoo ñëw pour jaal suñu nouveau xalif mooy Cheikh Maye Niass ñu koy jaal di ko jaal waa Medina Baye yëpp di ko jaal pays bi di ko jaal Sénégal ak umma islamique waaye ñëpp xam neen nu Maulana Cheikh Ibrahim Niass mel si àdduna bi ñëpp xam neen dimension bu Baye Niass am donc je pense que dëkk bu mel ni Medina Baye war na am beneen considération man yaakaar naa ne Medina Baye waratuñ ko boole ci commune de Kaolack mais dañ ko war a jox gëddu commune nga xam ne den fi mën a def ay projet d'assainissement mais également ñun si suñu programme suñ plan de développement économique et social suñu vision ñu ngi sóoraale pour que ñu def fi du tourisme religieux comme ni koy defee Marrakech. Maroc euh, Maroc comme ni ñu koy defee Fès comme ni ñu koy defee également à la ak yeneen réew yi donc je pense que meddina Medina Baye suñu fi defee tourisme religieux dina jur koom bu nga xam ne non seulement ndaw Kaolack gi mun neen si liggéey mais également ndaw réew mi yëpp leen si liggéey parce que Baye Niass nekku fi pour Medina Baye rek wala pour waa faydu bi de wa ummati xasifihim an asrixohum ila hadrati barri rahim ilahuna moom umma bi yëpp la fi nekkal donc ku mel noonu je pense que Sénégal war na ko jox beneen gëdd te Sénégal war na fexe vraiment ba bénéficier wu vraiment des avantages yi nga xam ne yooyu la ñu gis nañu léegi yaa ngi wax euh, ci nga xamante loolu ban jàngat nga ci def ak tolluwaayu mbas mi ci réew mi gestion bi naka nga gisee. waaw balaa mooy ñëw si loolu réew mi moom mu ne ne dara doxul wàllu mbay mi indépendance ba tey ñu doon béyee béykat béykat yi ñu doon béyee 1960 ba tey noonu leen continuer di béyee donc war neen euh, yeesalaat suñu façon mbéyin réew mu mel ni Europe. population bi soo ko jëlee téeméer boo jël ñetti nit ñoo siy béykat mais ñetti nit ñooñu ñëpp ñooñu ñetti nit ñooñu rek ñoom ñooy dundal pratiquement Europe dama joxe exemple waaye fii ku ne béykat nga daanaka doo am sax loo lekk alors que béy moom moo war a doon le moteur de tout développement économique maintenant lu tax loolu am euh, différence parce que réewu tugal yi ñoom dañu accompagner seen béykat yi dañ leen di jàppale alors que fii ñun dañu dañu naan deretu baykat yi su mu mënee wax loolu parce que ni ñuy def mooy su nawet jotee ñu jox la jiw jiwu gerte su à la fin de la récolte gaa ñi ñëw ne la temps ngay jaayee gerte bi fixé la seeni prix alors que mbéy mi mun neen ko diversifier mun neen béy blé quatre-vingts cent de la population lu ñuy ndekkee mooy mburu te mburu boobu c'est fait à base de ay milliards yu ñuy jël di ko jox bitim réew mun neen ko def fi si réew mi ñu doxal mbéy mi côté njàng mi ak jàngale bi loolu aussi dara doxu si joxe naa réew mel ni Corée du Sud Japon Chine ak yooyu dañoo dugal xaalis bu bëri si mbéy mi moo tax ba léegi alhamdulilah réew mi di Sénégal da ngay dégg ne 43 pour cent du budget ñu ngi ko alluer à l' éducation mais loolu vraiment ay pompe la rek pour aux suñ ñëwee également ci wàllum santé. jamono yi si ginnaaw dégg ngeen am na soxna su nga xam ne dafa wasin buntu hôpital euh, bu nekk Yoff ma Philippe Maguilène Senghor loolu xam ngeen ne du yoon l'accès à la santé doit être loolu dafa war a doon lu nga xam ne droit la donc couverture maladie universelle bu président de la république wax loolu c'est tout sauf universel dañ ko fi def rek pour du clientélisme politique mais fii ku fi feebar amoo moyen da ngay dem si morgo donc loolu war leen ko kiyaat wàllu gazelle oryx yoo leen di wax nag dama ne ministre de l'environnement amul droit jël gazel orix ah di ko jël di ko togg dibi di ko lekk wala di def leneen déedéet loolu bu mu ko defee moom dafa war a démissionner wala président de la république dàq ko wala boobu président su ko mënul dàq ñu jël sénégalais wu ne ñu jox la gazelle oryx parce que moom gënul kenn. donc fekkee moom am na droit jël si alors que moom moo war a protéger gàncax gi war a protéger environnement war a protéger euh, faune ak flore su defee loolu je pense que loolu du doxaluñu kilifa affaire coronavirus bi ñëpp gis nañ ne c'est une gestion calamiteuse euh, moom ministre Mansour fay ministre Mansour Faye waa force Covid 19 laaj neen ko ay facture mais ba léegi joxew ko lan moo tax parce que goro goro président de la république. je pense que loolu réew mi war nañ dépasser genre doxalin yooyu